no, ba tey ci seen scandale du jour ci mbirum projet bi ñu déglu ci kàddu yi ñëwaat. gëm nga ni projet am na yow en tant que observateur mën nga teg ci sama loxo projet. d'abord man ci. Pour bi sax ci appellation bi projet man daf ma poser problème mhm. mais ba tay bu fekkenti ni projet lañ ko bëgg tuddé mhm. ñu mais projet dafa wara am lu leer bo mën nga ko tek ci nit mhm. mais dama dafa ci seen bop bo xolé ci conseil des ministres yu euh, premier ministre. Euh, Ousmane Sonko ci fait mhm. ci intervention yi nga def nako ah dañuy taxawal commission. Mhm. ci primature nga est sama dogal lay mhm. euh ñu projet bi. dina jël ben bi nga def ba 2025 pour ñi ça fait 10 ans ñuy wax projet projet bi projet projet bi wax deug yalla bu ñu ñëwé di wax lool mhm. ça veut dire que projet bi mësul am en tout cas ci ni mu wara amé en tant que programme de gouvernement. Mhm. parce que niñ koy waxé ci tuba dañuy wax ne gouverner c'est prévoir mhm. waaye dañ ci teg ni prévoir avant de gouverner do bay ah xeyna peut-être mu bett la loolu mën am mais bu fekkente ni yow de nga don xëccoo mhm. surtout pendant dix ans quand même tu as eu l'occasion vraiment mhm. de euh, réfléchir comme ñom nuñ ko waxé ay mhm. ñeenti junni danaka expert waxtaane nañu projet bi ba tek programme bu leer loolu nag bu ñu ñëwee mu demee nii euh, dafay dafay xaw a doy waar même bu fekkente ni ci ñi nga xamanteni ni xam nañu état ni muy doxee euh, maanaam lu ñuy wowe la réalité du pouvoir mën nañu japp ni xeyna li nga fogon ci lu bari bi nga ñëwé bañu jox la nguur gi mhm. da nga gis ni xeyna réalité bi leneen premier ministre Ousmane Sonko nga xol xool nga nan nga koy yaatale mais defe naa daal ak nu mu ti démé mais moom nee na gëmul réalité du pouvoir euh, pour man ak mu mën ti démé mhm. euh oui ak nu mu ti démé pour man mhm. day faatu euh, c'est vrai que tel nous def xayma un bilan ñi nga ñaari rek lañ fi nek mm-hmm. comme nous faral di waxé 100 jours c'est symbolique xam nga c'est symbolique dañu ci 100 jours yi indi ay rupture comme mm-hmm. transformation systémique sax teg ko mm-hmm. da nga war a tout de suite jël ay dogal yu leer mais seen dogal yi dafa manqué leer. Mhm. donte. mais balaa ñu ñëw ci. Hmm, projet bi de am tudd lañ ci am tudd tudd projet bi projet bi lañ ci am am projet lañ ci am amuñu ci leneen ok moom kese lañ ci am tudd bi tudd bi projet ok ne ko ah kay noonu la fa kaa bi demee projet tur tur tur bi la rek tur bi ne ko tur bi la rek tur bi. kay ne ko waaw kay kaa bi nii la demee tur bi la rek kenn xamu ko ndax kenn xamul ban couleur la projet bi kenn xamul fu mu commencé ak fu mu jeexee bu dee nag livre solution bi la nag peut-être ah je sais parce que man wax dëgg feer fu mu nekk damaa maandu maandu laa woote waaw kay. que eu vivo. iguais